ci suuf noonu wala lex de yooyu ak ci loolu tamit ni moo gën ci moo gën waaw am na ci ci ñu bari ci ci ulama yi ak aulia yi daal seen toqal bi daal moom duñ ci atam bi daf ñoon nañ fab suñu lex tëral ko ci suuf si <coughs> dagan na ghuslu imra'atin sangu jigéen ibnaka doomu góor doomu xale bu góor bu tolloog juróom-ñaari at rajulin wala sax góor mu sang karabuy atin ku jigéen ku kuy nàmp wala ku ko jege toll ci at ay yooyu daal dégg nga waaw ba tey sopp almaaw ndox al ma ne bu ñu nuggal ndax dañu wax ne am na nit ñoo xam ne dañoo am ndox mu sedd kon même bu deewee buñ sang ndox mu nugg lañ gën a sopp bu fekkee ne dafa ragal ndox mu sedd loolu kii ci wala maa ngi wax nañ wax yu bari ci nit ki fii soo a jógee ndax dana yëg wala mu yëg lu muy yëg lu muy dégg lu muy gis ndax dana ko def wala du ko def xam nga asxaabul qalil bi yonent bi salaa sallam ci Badar nga di gënu leen leen li may wax waaye ndax na leen ñëw boo ko sottee ndox mu sedd dañ ko yëg boo ko sottee ndox mu sedd dañ ko boo ko gaañee dañ ko yëg ma leen loolu yëg ko de toute façon moom wala maa yi mu wax nañ ne man buñ ko dencee dana am ñeent fukki guddi yoo xam ne roogoo gi maanaam ñoom xanaa takkandoor roogoo gi la day wëndeelu di ñëw këram ak yooyu di jéglu di seet ndax miraas nañ ko di jéglu ndax njabootam mu ngi tumuraan ko wala yu mel noonu bu amee ñeent ci lañ dëgg ñeent fukki guddi yi ñuy jàngal ñëw yi ñuy ñaanal ñu bu ñeent fukki guddi yi matee nag dootuñu gis. dana ci kii moom ci arrosé ak doomam bu ko dee uug jooy la wala yu mel da koy lii woo nag dafa mel ne ñun dafa am yoo xam ne daal doy na waar lool te nekkul waxtaan sax doy na waar ci ñun doy waar na doy waar gis nga moom daal mbirum doy na xam nga ruu dana tàggoo ruu nit dana am koo xam ne ku bëgg bëgg bëgg wala mu amel ko du rëy jamono muy faatu ruuxam xam nga ruu mën na daj àdduna bépp nekk fépp dem kooku gis ko te bu koy gis jëmmam lay doon te loolu am na ay ay yoon jëmmam lay doon yoo xam ne ñu ñëw di wax ak moom ba mu defee ni moom la man de li nga sama baay du muy faatu baay bi di doon fële hmm. waaye dafa téléphoné ne ruu suñ sàmbool ak kenn dafa maa tab du hmm. mu koy téléphoné ñu ngi ko yóbbu waaw day am day am. waaw. dégg naa mu nekk li benn mu nekk li benn xas boo xam ne maanaam dégg nga ko moom jiw yi waaye mu bàyyi dégg nga ko météo. waaw loolu ñuy wax bay moo ak loolu dëkkul fii. waaw léegi ñu si woon daan daan lañ jàng ci moom. Mm-hmm. bi ñu génnee seen kër def naa ne ak ñoom di jàng boor yor yor nee na mu am fu mu ko laaj. Mm-hmm. ci kër bi mu jógee ne ko ana ah, jiw mu ne ko moom la. nag day doon day war ko mën a daal koy jar bi doy waar. ñu ne ko daal ma ne jiw mu ne ko ma ko mun ko ah dégg nga ko. ñu ne mu ne ko ah damaa ko bàyyi wala mu ne ko ah baax na nan jàng bi ñu tàmbalee jaar ñu jub taal bi mu ne ko ah tax ma la doon laaj. roo ngi suma taal. waaw dana am ñu koy yëg nag daa am ñoo xam ne dañ leen tàggu te ñoom duñ ko yëg am ñoo xam ne dañ ko yëg dañ ko gis am ñoo xam ne jëmmam lay def loolu am na ay yoon yoon yu mu leer mu wér mu ni mooy wala war a jul wala góor mu sang karab day at lu demee nekk ak yi naam ci mu ne wala maa ndox al mu saxanu di mu ñu nuggal dégg nga nañ ko woobatu sopp adamu dal ki ñàkk ragg li ko moo taa fekkee ne ñu dee ñu bari lañu comme Sonacos wala guerre wala yooyu ñu sotti bon njëg wa teg ak sànge bi mal góosin ci la muy sol aw mu sàqari mu ngi dagal na ba tey aw ñu xam nga saafara saafara mooy safron euh, jigéen ñi am na yu ko daawoon suube bu yàgg léegi ci euh, arab yi wala ñu njëkk ñi daawoon nañ ko suube seen yére dana xam sol maanaam libaasul muzaafar zafaran lu laab la meloom nag nekkul melo woo xam ne dana tax xam nga ñu ñuul la waxoon ne am nañu ko sib ci olma yi ñu sànni ko néew zafaran nag loo xam ne dañ ko suube ko afran nag kenn sib ko takat na aw mu war a sin wala xam ne dëttu wat ay fleur la yoo xam ne dañ ko dañuy extraire ndox mi di ko togg di ko def ba si gët ni nga ci yoo xam ne ak ay yére wala yu mel noonu lañ koy xale masbuuq bi wax li annama min tayi bi te yooyu dana changé sax xeetu kii waxam lu ak waxam lu xayri arbaatin ak yenu ko yenu ko lu ëpp ñeent maanaam lu dul ñeent rek benn muy ñett wala juróom ak yu yëpp maanaam dagal na mhm. lu ko ëpp wala lu ko yées ba tey bañ a nekk arbaa bi ci leen waxoon ne sopp nañ ko ubat un bu mu wàll rek bu fekkente ne nit ki ngi koy sant wala bu ñu ko dee yëkkati bu ñu jàppoo jaat bi bu fekkente ne bopp baa ngi nii tànk yaa ngi nii ñu ne bopp bi la ñu gën a sopp ñu njëkk a ñu ci kanam ñu ci def waaye dagan na fu ci njëkk a yëkkati mu ni wal mu ayyinu def na mm-hmm. aji ràññeel nag mu tali on ku indi bidaa la بشيء أشرب من أشرب منذرا قائد يتوب مقدم سريري ليمن فيضعه الحمل على منكبه ليمن ثم كبده لنا ثم آخره ليمن ثم قدمه ليسر ثم آخره ليسر ثم هبد قائد يبدأ بمقدمه يسار السريري suñu bu axri saari mu axri saari suma mu axri yaminihi suñu bu muqaddamihi kooku kenn ku ci nekk ku wax yooyu moom daje am xaj man ñu ma waxoon sax moom d'accord ma moom danaan moom yëg njëkk yëkkati wetu bopp bi waaye mu ay wetu ndey joor jiitu wetu càmmoñ muqaddam jiitu mu axar loolu nag nee na bi daal ñaar ñi ko wax nag ci bu ko waaw yi lañ bokk xam fu ñu koy jëlee waaye daal tabdial na ko daal nee na daal kooku daal borom bidaa la moom mi moom mu ayyin bi bismillah mu ne lu ngeen teg mu ne wa xuruuju mutajallasin wa dana dagal ba tey xuruuju xuruuju mutajallasin génnu màgget mu jigéen toborom toborom xay bu dégg nga xam nga pour mu dem ci jaag maanaam rek dem ci rob dem ci kii mm, dëj yàlla jëm dégg wax jaxase bu ñu jax jinne ñu bari wala moom bu dul sax màgget bu fekkee ne ragal min haa ci moom al fitna fitna mu dégg nga boo xam ne xam nañu benn te ñu góor ñoom fa fekk wala moom bu nekkul ku màggat comme meloom dana tax kenn bu ci ragal fitna ba tey kon dana dagan Hmm. fii ko waaye fii ko abin ci mu demee ci baayam wala mbokk mu ko jege kon nga xam ne ndey ci la réseau bi ngeen hmm. tëtte wala borom këram abin ab doom moom na axin wa axin ci moom moo ne fii waaw kon ñëpp ñun kon ak doom wa axin ak mbokk ñun ñëpp kon dagan na mu hmm, fekkee ragal ñu fitne mu dem ci mu dem seet ci digg ba loolu xam nga fii di moom ak nit ki mën boobaa dagan na ci ñu koy ñu ànd ci rob bi dañuy dox ca kanam fekkee dañ ko yóbbu di di denc waaye bu fekkee ne fañ koy jullee ji la moom bokkuñ ko xam nga ci borom risaalam ci sharaba Muhammad ibn Habib lool ñu ne ci waxoon ut ko sa yàq sa xonk wala monsieur amaam ak janaasati waaw wa saqaa kon ak jiitoom nekk maanaam jiitu tàdd bi ca bàmmeel ba xam ko di ko xaar soo demee mën na ñaanal néew yi ak ak ñi nga ko xam ñu ko seen mun tagit ñaan mu ne wa julusun ak jekki xam la waba aha rëkk dañ ko tegagul ci jëloñu bàmmeel mooy jiitu te bañ na dundalee man nañu diw mu nga waxoon naa ci sànq xam ne euh, Ibnu Taymiya rotal na boo xam ne ci téere boobu daa siraatal mustaqiim muxaalifatu asxaabi jahiim benn néew bu ñu yóbboon bu ñu ko yenn ko euh, yonente bi sallallahu alayhi hmm. yahut ba ne moom noonu lañ daan def yéen yéen a ngi def ñu daan def toog nga denc ko sallallahu alayhi wa sallam ne xaalifuhum dañu dañuy taxaw mooy nga denc ko mu ne xaalifuhum léegi nga xam ne kon bu ñu yenn koo ñëw bi rek toog moo gën ndax moo gën donte bee xaraam xam nga xaddis yi dina am tere boo xam ne lil irshad ak tere boo xam ne lil jismi tere boo xam ne du lil jismi li ñuy wax mën du ba mukk dugg ci yooyu irshad በትንቁት ድርቅና ተረቁቁት njël noonu xam ne ñun irshad la dafay wane ne rek bala ñuy dal seen ko war nañu fogg bu baax wuute na ñoom ñun daanoon dajeel loolu rek la def bëgg dén ko moo tax usulu fiq yi am solo lool ci xadis daanaka bala ngay mën a jëfandikoo xadis rek da nga xam suñu fiq la boog nga dem ci téere fiq yi waaye fekk xadis ci téere rek loolu daal di cay sukkandiku moom ñàkk xam xadis la mu ne wa naqlun dagan na itam toxal toxal néew yi bokk na fay dawal dégg nga jëm ko ci bërëb jëm ko ci bërëb bu ko faatoo fii faatoo fii yóbbu ko Touba wala beneen dëkk bu mel noonu wala mu faatoo nañ ko ba noppi waaye xam nañ ne dara du ci sikk diggante bu gàtt la wala mu bu melul ne kaaw yi noonu ñu euh, bi wax bu mm. melul ne bay à moins nekk ci biir bàmmeel yi yéefar xam ñëpp ay yéefar yi dégg nga mu ñëw indil badlin donte dañ koy jële ca àll ba itam dégg nga jëme ko ci dëkk teer hmm. maanaam fañ ko dencoon espèce yu loolu ñu wax di fa bay ay tool la ñu bari dëkk du fa ay néeg yu néew fa ne néeg néew nekk ci dëkk ko ñu bu dee ca àll ba leen indi ko fii nga xëy na nekk gam nekk ca àll ba dong moo tax ñu bëgg koo toxal ba tey dana dagam wa in bëdun dén loolu mu ne wa bukkan dagan mm-hmm. jooy wa baadahu ak gannaaw bu ñu dee ba noppi it waaye nag bilaa rafi sawtin ci lu yëkkati baat doo yëkkat doo yuuxu doo jëbbatu doo xott yére doo xus karaw jooy rek bu ñuy dégg baatam dégg bilaa rafi sawtin wa qawli ak wax xabihin ju daal ñaaw doo waxit wax ju ñaaw diw sàngam moo ko rey wala diw def na kontaan na ko dóor mu dee mel noonu a tax bu dee mu yëkkati baatam hmm. na ba tey eh, jëmm am waasin dajale ay néew di xabri ci benn bàmmeel waaye nag li daruratin ngir léegi maar day taal yi épidémie bi kon moo am ñu ñi di dee par dizaine wala guerre xeexare wala catastrophe bu mu doon nga xam ni gatal ku nekk jullee ku nekk ku nekk dana tiis ni mu waxee te daan sotti ndox mu sotti leen ndox sans ñu rakk gas benn bàmmeel wala li ci yëpp te ñëpp ñuy jullit ñu góor ñun ñu taroor suñu boo wajee bu ko defee ñun nga na al xibla ta xibla ci féete penku mooy kan al afdaru ci gën ngëneel bi ñu ko xam ne parce que wax na ko fii saala de mën nga cëri parce que zakaru ala noonu saala góor moo gën jigéen wal kabiru ala saxir mag moo gën ndaw wal kërru ala raqib liibar moo gën su liibar yi wala alim alal jaahili moom xam-xam bi bu dee moom jaahil bi doon xam moom waaw. aw bi salaatin wala génn julli ñu boole leen ci ñoom ñëpp. waaw fay gis jamono bi laa daroora si ñu xam ko ci salaam mu ne kooku même bu dul daroora waaye moo gën moo gën kenn ku nekk ñu defal la hmm. lu tax am na si xëy na ku baax moom xeet li na ne nit ki jëfam ak wala baaxam wala melam mën na jëriñ nga léegi dana mel ni alimaama dana féete ci imaam rajulun bu dee ñu ñu dajale ñu jigéen ci féete ci imaam bi moom kii nekk exactement ci imaam bi ci góor la topp ci ñun topp xalel fa abdun topp ko ñun moom fa xasiyun topp kap kwanga fa xonsan topp mbulu ngaana kadalika naka noonu te fi sil si li ci maral itam ay dan li ci eh, benn xeet yi maanaam fekkee na benn xeet yi wa fi sil si wala wa fi sax yéen dina ba tey waaw dana dagan fi sil si ci xeet ay leen itam safu ñu sàtteel leen ñu ñetti góor lañu ñu sàtteel leen ni jullee leen wala ñoom ñëpp jigéen ñi ñu sàtteel leen ni def leen ki xam ne mooy féete ilimaan yi bu dee jigéen ñu taxaw ci féete ay mbaggam ñu ko recommandé bu dee góor ci féete njëkk te ci suuf si ñu ci benn xeer aydan ak sàpp sàppee wa dagal ay bàmmeel na ñaan faatu nga jóg waaye nag moom moom góor rek nga dem amul bis ajjuma dee siyaare am ñu bari ci waan rek am ko daan defee wante amul dayal amul ñaar nangam defit ci semaine bi wala waxtu sàngam mu ne qaala malikun radiallahu taala بلغني أن الأرواح بفناء المقابر فلا تختص زيارتها بيوم بعينه وإنما خص يوم الجمعة بفضله imam Maalik li mu ko waxee ne dégg moom jot na ko ne rooxi way dee ñi maanaam ci ëttu bàmmeel bi bàmmeel yi maanaam fii ci janaas yi bàmmeel yi daal foofu la ñuy wëndi moom ci ko mu ni kon nag waxtu wu nekk maanaam kon roow yi duñu fàddu mm. kon mën nañ leen a ziare waxtu wu nekk kon mën nañ leen ziar waxtu yu nekk mu ne nag boo gisee bisu àjjuma mu gën koo taamu gëneelam comme nit ñi amee ay ngëneel le bis yi amee ay ngëneel weer yi noonu la amee ay ngëneel noonu la tàkki suuf yi amee ay ngëneel jamono yi itam bu fekkente yu bari yoo xam ne wane xam nga waxoon na ne sànq ne wax ne néew bu faatoo ñeent fukki guddi yooyu yëpp maanaam ñeent fukki fan yooyu weeru fukki fan yëpp day dem këram di wëndeelu comme picc muy fii noonu di dellu si waat di seet ay xabaaram kor fay nañu ay borom miraas nañ ko ba gootam tumurantu nanga mas naam bu matee ñeent fukki fan dootu dootu du génn si bàmmeel yi dootu génn si foofu béréb di ko ñaanal nag moo tax ñeent fukki guddi yooyu ñu fiyee ko léegi nag bu fekkee ne comme bu ñeent fukki guddi jeexee itam mu ngi foofu ci bàmmeel bi ndax loolu suñ xel dañ dal di xalaat ne kon barsàq di bërëb ba nga xam ne ci la wooyee daje ak xadis bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yu arwaahu shuhadaa yi fi xawaafili bayrin xudrin ñu ko waxee ci xaw ma nan taraa fi riyaadil jannati summa tarjoo aw taawudu kama qaala alayhi salaatu wasalaam suma tawi ilaa xanaa diila fi zillil arsh wala taxta arsh boo ko mën a xaalis comme ni ma waxoon sànq ne ruu mën na teewandoo ci béréb yu bari ruu mën na teewandoo ci béréb yu bari mën na jël forme yu bari mën na jël poids yu bari ndax teew Israël mooy rocc ruu yi léegi bu guerre amee ci dans les expliqués guerre am en Amérique wala Angleterre ñii di dee par milliers ñii di dee par milliers kenn ku ne dana rocc karu te kon ruu yi kon kon wàcc wàcc ne roo yi mu fi teew ba nga xam ne ci leen di siyaar mën na leen di siyaar waxtu nekk guddi bëccëg ak bis bu mu mën a doon terewul sax teewul sax ki nga xam ne faatu na te amagul ñeent fukki guddi comme day dem di jëllu si di dem di jëllu si moom ko ko fekk waaw waaw waaye xëy na ndax loolu am na ci cosaan xam nga. suñu ah, waaw waaw waaye maanaam fu mu tegu xam nga ndax li di sàmm ak maandu moo di sharia loo ci atte daganam wala xaraam na nga ko teg mm-hmm. ci fu wér ndax amul kenn kuy daganal wala kuy xaraam ku dul yàlla amul kenn kuy xamle lii xaraam na wala lii daganal ku dul yonent ba jaam ñi li ñuy def war nañ ko teg ci alquran wala ci wax yi ulama yi nag xam nga keroog bi aaya jooju wàcce al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wane na léegi sari amat na sëkk waaye leer na ne booba am na xew-xew yu bari yoo xam ne yonente bi salaatu mosu ko at ndax mosul xew ci jamono mosul xew ci jamono sidna Abubakar mosul xew ci jamono sidna Umar wala sidna Usmaan wala sidna Ali lan la tekki kon al yawma akmaltu lakum diinakum te am atte yu des yoo xam ne saxaaba yi xamaguñ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àtte bi fan la ñu mën a teg kon alyawma akmaltu lakum diinakum moo di comprendre esprit du islam xam li muy bañ lépp ci wet bu ko defee xew-xew bu xew bu ba saali taxaw daañu ulama yi xam nañ ñu ngi koy àttee xam nga fiq dafa bokk ci dañuy wax ne ñetti xam-xam xam bu ñor ba xëm xam-xam bu ñoragul xam ak xam-xam bu ñor ba noppi te xamul fekk dafa bokk ci xam-xam yi ñor te xamul ñor gi mooy lan mooy topp nañ ko di ko développé di supposé ay cas yu amul yoo xam ne xëy na du am ba ba taxaw ñuy seet atteen di ko ballalu di am fu ñu koy teg ñëpp ñett yëpp dellu ci alquran hadis ijma ba nga xam ne daanaka li àtte rek fekk étudié na ko ba saxal mooy ñor na xamul mooy ñu dem ba topp yoo xam ne dañ cay perte temps bu bari te amul njëriñ comme ci naxwu naxwu xam-xam bu ñor la ba noppi xam nga am na ay ay ay chapitre ci naxwu al ixbaaru billazi wal alifi wal ami ak yu mel wal laami ak yu mel noonu xam nga ne amul benn njëriñ ñi ko sosoon sax dañu ne woon dañ koo def ngir nattu talaba yi maanaam étudiants yi ñuy jàng grammaire ñu jàng ko di leen nattu ba xam seenu yeewute mais amul njëriñ du la jëriñ lenn kon naxu bokk na ci xam-xam yi ñor da xëm topp nañ ko topp ko ba li ci doon farata ak li ci doon sunna lépp mat na ñu ko sunna am na xam-xam boo xam ne mënul te xam bu mel ne aroom aroom lay rek la da ngay gis lu la leer na ci ci sa dëwk dugub aroom daga na ko ndax mos na gis benn saayir bu ko def dugub ko tiim nga xam ne jàng aroom taxul ci amul sajiyatu shaari bu tax mu mën a way ki mën a way itam daanaka bu tënku ci aroom yu mel ne xaafiya ak wës mu jeex ñu topp ci nag ci fakk di xobbeeg di tarkiib ba mu nekk fànn boo xam ne amul benn njëriñ te ci perte temps bu jeex di ci ngër ngëri di ci werante di ci soow fakk moom mën la dafa ñor xamul léegi gis nga comme yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tëral na boo ko dee tari salaatu ala nabi gi ñaanal sa bopp ñaanal jullit ñëpp ñaanal leen mu jéggal ñaan mucc ci ay masix dajjaal ñaan mucc ci lépp lu yonent bi sa ñaan mucc ci ñaan ci boppam loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam sàkk na ko formule boo xam ne la ñi war a ñu gis ne bi sallallahu alayhi wasallam am na ñaan yu bari yu moom bu daan gis ne am na ñaan yu daan ñaane yu bokkul ak bi daan ñaane ñu gis Sidna Omar am na ñaan yu daan ñaane yu bokkul ak bi daan ñaane gis ne Sidna Ali Sidna Ousmane ñun ñëpp gis ne am nga ñaan yoo doon ba ci Sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha ñu gis ne kon ñaan moom yonente bi dafa ubbi bunt bi jullit du nekk lay ak na ci toroxloo ñaan nga ñaanal ni ñu daganale itam ñaanal sa bopp nga daganale ñaanal jullit ñëpp ñuy dund ak ñi dee ak ñetti bàmmeel ya istixfaar itam mu mu sàkku mu mu mu def muy feddaliku di ko defal sa bopp di ko defal say waajur wala keneen bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax maanaam ñii nit nañu Seydina Abu la ku ko gis ci yéen na sàkku ci moom mu ñaanal ko njëggal ndax lu mu ñaan suñu borom dana ko may sidna ali nag sidna ak sidna omar ñoo ko gis te lii daañu wax ne bu ñu ko gisee di ko sàkku ci moom mu jéggalu leen suñu borom mun ngeen yéen ku jóge ci Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam di ñaan loo kenn ñu xamal ko ni ko yonent bi moon waxoon loolu moon ñoon ko la gis ne la ñaan loolu ndax loo ñaan suñu borom dana ko def mun ngeen Muhammad ibn Abdullah di gis leen ci moom lu dul takk ndoor ba mu ko ah mu ne leen waaw ñu ne ko ba ibnu abu quhafa ibnu abi quhafa sax sidna abu bakar mu ne sidna abu bakar sax di succoo bu ko waaw yow nag ndax gis nga alxaqiqatu muhammad yi yow mu ne ñaanoon naa sama borom mu di mu muri ci raay yi dox suñu digg ak ba mu des juróom-ñaar fukki junni yoo xam ne daan bu ma si jege di seeye bu boy laay seeye da ngay jàng lu bari te xam ko médité ko itam bu ko defee problème bi yëpp yëpp lay gis lu tax amul problème bi insoluble ci islam xam-xam nit ñi moo ci àgg wala mu nekk ca àgg bu fekkente nag ñu bari ñun ñoo xam ne seen xam-xam àggu fa te seen fit moom àgg na fa daañu réer wax yu bëri yoo xam ne boole ko lam yu rëy yu rafet yu mm-hmm. a wax ba ku ko dégg gëm ko dara taqiwu ci dara laaliwu ci a réeral nit ñi ñaan moom dañuy ubbi bunt bi ay kon ku nekk ak na la neexit la nga aajo bëgg koo ñaan ak waxtu ko bëgg a ñaan lu tax mm-hmm. suur li xalaas nag li muy tawxiid te xam nga nit keroog dong dong sauvé nit fan ku nekk sa leeru imaan ci lëndëm bu tëx googu bu ñu jëmee saa béréb ba ñu ba saa di taxaw moo lay leeral booy jéggi siraat sa kàtt ñu ngëm moo lay jikk si dina yóbbu nam gaawe nga doxinam ci gaawe kon kuy ñaanal néew ixlaas bi nga xam ni moom dañ ne mooy surisu alquran ndax lu tax liñ ko tuddee surisu ixlaas yi lu tax sellal gi suñu borom dom lañ ci wax moo tax tuyaabaam bari iman moom moom doo ngay xeex ak bàkkaar nit mën naa am iman bu dëgër te jëfam amul solo imaanam solo nit mën na jëf jëf yu bari te imaanam dëgër jëf ja woyof lan la yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne Abubakar gënewu leen julli bu bari wala bu bari wala sarax su bari waaye mbóot mu sax ci xolam mooy ngëm ga mu ne mu ne law wusila imaanu Abi Bakrin bi imaani naasi larajahum sikkar boobu mooy ngëm bi wóolu jox yàlla ba mel ne yaa ngi teg sa ci moom foo tong foo geesu gis ko loola seet gis ko ki gëm yàlla ba nga xam ne bu bëggee def lu lu bon rek mu yàlla teew si mu ragal bàyyi ak nga xam ne mën na dem ba ci digg ba soo ko fàtt wala mu dem ba def ko ba noppi dellu soit ji yeddaat ba ko comme ni ñu waxee woon rek nafsul amaaratu bi suwi nafsul lawaama nafsul mulhama nafsul mutmainna nafsul raadiya nafsul matiya nafsul kaamila nit ki noonu la lay gën a selle imaanam di gën a dëgër xam nga saxaaba yi dañuy wax ne moom pour jëf kenn mënu leen cee jot kenn mënu la jot saxaaba yi ci jëf waaye ci daraja mën nañu leen jël ndax daraja mu ngi aji ci mu neex ci yàlla. ci ndax mën nañ mën nañ a jox ñu doon jox. waaw jamono ji ah jamono ji ñu ne xaw ma kii waaye jamono jamono bu mu nag nombre xarit yàlla yi du manqué waaye nag nit ñi ñoo dootul yelloo xam leen. ñoo leen dootul yeyoo xam leen ndax jamono ji yàqu ak dëngu nit ñi moo tax dootuñu ne ba leen di wetti sax dañ leen gëm. tëj buntu buntu ñaan boobu. ndax ñun du ci mën a dimbali ko ñaari mbir. bu dee jéggal wax naa loolu sax ay ma loolu bàyyi na. Euh, maanaam li yonent salaatu wax ni alquran ñu alquran. ñu dégg loolu. kon bu ñu amee loo xam ne lu ñu itteel la ñu jàng ci alquran. ak lu ñu ko mënti jàngee. xanaa ni limité wuñu kon ci wàllu bu ñu déggee loolu. maanaam waxuñu daal euh, indiqué nangam ngeen wala dafa dëgg alquran rek maa ko def. waaw waaw waaw. xam ah, nga benn xadis bu ñu wax ne léeg-léegi maanaam. yaasin de ku am koor boo ko jàngalee. waaw yaasin bi xam nga yaasin moom. ak munkar dafa am yeneen i secret yoo xam ne. ñu ngi ci biir. dafa am ay secret yu am solo ñu ngi ci biir. yaasin de boo doon yeneen xalbu alquran. Hmm. xolu alquran am na lu ci nekk. yoo xam ne lu ñu dëpp la. surtout mu kii itam naa ko sax noonu xam moom dañ ne sax koy jàng guddi gu nekk doo am benn tiitu bàmmeel doo am benn mu këlu bàmmeel man waaye ak gannaaw gis nga fi mu ne kenn mënul ne tambat yadaa abi lahabin surtout lixlaas yi ko gën comme wax yàlla mu gërëntewul lu fayam waaye nag pour binisbati ilal bariyati maanaam ci doomu aadama pour doomu aadama yi ñoom am na yu ci gën ci ñoom ci nangam am ñu si gën si ñaan sàngam am ñu si gën si jëf sàngam am ñu si gën si aajo sàngam am ñu si gën naan noonu la demee hmm. alxuraan nag moom li maa xure am moom kay si yi kenn waruñu ko ndax kay siyaat la gis bu yi nangu yi dañuy wa iba darsin fekkee ne rek bérébu ñaan boobu rawatina nag bu fekkee ne wàcce nga ba tey ci biir kii yu alquran yi itam mu biir yow ci suuf yaasin yëpp bérébu ñaan ak rahmaan yooyu la ba tey suuf la ami xataa xataa nuuta qaala wala mumina xataa nuutee mislama aussi rasulullahi allahu alamu diggante rasulullahi ak allahu alamu bérébu ñaan la boo xam ne waa ñaan saar alquran ci wàllu wala lu mu wax rek bi nga xam ni mhm. moom la am ci par exemple bu ñu amee maanaam dina anam ñëw jël al euh, lu mel ne euh, kii xulwa euh, xulwa laa ñaanale ko maanaam buñ déggee loolu yonent bi ak ak euh, li nga xamante ni mm-hmm. euh, addis boobu ñett ni yonent salaasam dafa dégg waa muy ñaan benn saxaab yi mm-hmm. mu naan allah yaaman laa tarawul yoon wala tuxaalitu zunoon mm-hmm. ila axiri mu mu mu bëgg ca ñaan nga ba ba kii yam loolu moo xamal ne bi mu ne bi mu julli bi mu ne sami Allahu liman kooku ne rabbana wa lakal hamd hamdan tayyiban mubarakan mu daal di jàll bunti asamaan yi ubbi ko bi mu sëlmalee geesu gannaaw laaj ana ko wax wax dara dañu ko wax loolu te loolu kooku jëriñu ko fenn waaye mooy yaa ngi si biir sax mooy li mu leen wax naan ñu bari ñu wax naan bidaa la du bidaa daf ci am yoo xam ne waaw ci gàmm gi sax kii mbirum gàmm waxoon naa ko expliqué naa leen du benn bidaa ñi nga xam ne sax dañuy faral gàmm di bëgg gàmm dañ naan bidaa bu rafet waaye du benn bidaa yonent bi tënk nit ñi ci li ñu war a def yëpp dafa xam ne nag li nga xam ne moo baax ak li bon ak li ñu mën a jaamoo ak li ci bu ko defee nag ay fànn jeex la nit kenn ku nekk mën nga cee tànn li gën ci yow ak li bi nga xamee ne benn suuf yi bu nekk ci àll bi daf na ko Malik ibnu Anas yaa ngi tëdd ci lal yu nooy yu rafet di sol yére yu rafet di war ay baxla ak naaru góor yu rafet nit ñi di jóge penku ak sow di la ziar si ñu di la laaj ngay ubbee di jàngale xam-xam li nga nekk lu baax la bu am solo waaye am naa wóolu ci ne boo génnoon dëkk bi dem ci àll bi tumuraanke wéet ak sa boroom boole xiif ak mar ak sikartu yàlla mu gën ci moo moo gën a ci imam Malik tontu ko maa ngi leen gërëm di la sant di la ñaan li xam ne noonu la jullit ñëpp war a def yi la vigente li nga wax lépp dëgg la ma dolli na ci rek lenn bari na ñoo xam ne suñu borom ubbil na leen buntu yiw ak bu buntu yoonu yàlla ci julli te defalu leen ko ci koor am ñu mu ko defal ci koor te defalu leen ko ci jihaar am ñu mu ko defal ci génn feeñal xam-xam ak yee nit ñi te defalu leen ko ci beru giñ naa ne li nga nekk gënul li ma nekk ni nga xam ne bunt yi dafa bari sàkk ci àdduna bi rek yére yi tissu yi bu ñu ko doon jaay kii day ñëw jënd bi kii jënd bi kii jënd bi même ko continué rek benn rek la ñu soxla bi ci def du am njëriñ te benn booba itam du doy àdduna bi faaw ñii dañuy boulangerie la ñuy def dañuy lakk mburu bu ko defee bu ñu soxlaa mburu am ko ñii dañuy ràbb ay tissu bu ñu soxlaa waddu am lu ñu sol ñii dañuy bay li ñuy bay moom la ñuy jaay si nit ñi di ko dundee ñii la ñuy sàmm moo tax ñi am soow di am dër di am yàpp ak yooyu yëpp ñi ci des di liggéey leneen ba ci ñuy dawal oto yi lislaam yi boo ko seetee jaamu yàlla yi loolu dégg nga boo comprendre wax imam Malik bi léegi maanaam la kullun muyassarun lima xuliqa kullun muyassarun lima xuliqa sallallahu alayhi wa sallam xam naa ñu continué boobu yaa ngi. moom Baol Baol yi naan bu wutee bëgg bëgg a jeexal mat. waaw. <laughs> waaw. ak bind ci moom la ñu jàngee itam waxtu boo ne takk na ceinturam pour xeexi mu tekk ko te dajewul ak noonu ba wala noonu ba dawul wala ñu xam ne sax ba amatul julli yoor yoor mu war ci moom keneen ku mu doon yow lay neex nga di ko def waaye moom dafa war ci moom mu julli yoor yoor yu bari yu mel noonu da ngeen koy. waaw. waaw in rabbaka ya'lamu annaka taqumu adnaa min thuluthay al-layli. waaw man de maa ngi doon indi nii moom ji nga ko. loolu tax na dëgg yàlla dëgg yàlla alayhi salaatu wa salaam maanaam bu koy sunna la. mu nekk naam ñenn ñi. loolu tëbuñu leen ko dañ ko léegi bii ak maa la. ñu def leen bu la leen wóobee ñu jóg te ñu ngi leen def. ah waaw ñun sax day wax dëgg yàlla xam nga moom. nit ñi li ñuy def taaju bi taaju bi yàlla li ci ëpp pour mbaa mi xam li ci ëpp waaw moom nag boo ko seetee même ci ay ñu mag la ñuy doon wala ñoo xam ne dañ di génne ci xare ñu bëgg a ay relation yu jàmm diggante muy koo xam ne borom këram dafa faat te nekkoon ku jàmbaare ci lislaam moom mu bëgg sumuranke ak njabootam mu ne ñoom rek surtout yooyu nga sawda moomu gis nga safiyatu bintu xëy ñu axtub nga xafsa presque daanaka ñoom ñëpp ci dul sayyidatuna Aïcha waaw ah, wala fi moom gannaaw mooy ñu ko mu wala an tabaddala bihinna min azwaajin laka nisaa'u min ba'du te itam suñu borom xamal na ko ne gannaaw ñooñu jeex na waaw te bu fekkoon ne bu fekkoon ne dara lu jëm ci boppam la keroog bi ñu jógee banu Qurayza euh, yahud yooyu ba def leen muhaasara ba def leen ijlaa ñu wàcc fa seen alal yi amoon yëpp ñu gërëm nga ñu waar ba àgg fan jëm bu ñu indee alal yooyu yëpp waa këram ñi dañ maanaam daal ñàkk a lekk ñàkk kii daal ñàkk am dara daal bi ñu nekkee woon comme alal ju bari ñëw na nañ jëm jox ñu dund wala yooyu bi ñu dikkee di ko laaj dund aay ji ñëw mais yaa ayyuhan nabi qul li azwaajika in kuntunna turidna alxayaata dunya wa zinataha fa taalina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daara al axirata fa inna allaha aada lil muxsinaati minkunna ajran ñëpp ñu daal di dellu gannaaw xam nga loolu na ne moom adduna ci dara bëggu ci dara ci dara bi xam ne ne ci bi ñu ubbee Taïf ci jur loo xam ne kenn xamul mu benn waaye boo xam ne moo fi gënoon bañ yonente bi sallallahu daal giñ naa ne day maye maye maye boo xam ne maye koo xam ne ragaloo ñàkk mu joxe lépp même même kii sax muhaajiroon yi gënoon a ñu bàyyi woon seen lépp makka gënoon lot bu ñu ñëwee daf leen a xas ne leen ñu fi àdduna dong ma jox ko ay nit ñoo xam ne pour nii nag seen xol lislaam dong ngeen di ci aj seen xel yedd leen ñu delloo àdduna wane ne daal mosul dëgg ci adduna ah ci jëfandikoo ci dund xayaat zawji ak xayaat nafsi am xastaab yooyu yëpp mu ci nekk daf koo wane mu leer amul kenn ku dëddoole moom kenn kenn ku dëddoole moom amul kenn kenn ku sonn ne moom amul kenn kenn ku jàmbaare ne amul amul kenn kenn ku amee xel ne moom xel kese rek ñu ko ci yàlla def benn mbindeef la ko ne kon wa takraaruha wa takraar jullee wa tax ne dafa di sang néew bi dégg nga mu ngi doon ci ka teqatu naka péer ko wax mooy ñu ko di mooy ci rek faatu ñu dem di ko sang ak di ko defal tàdd nit ñi di ci topp di ko suuli wala yooyu euh, màggal musiba nee màggal musiba la loolu araam la te soxna ka téer ba tax nit yi ba tax nit mu mu ne gëttalam maanaam ñi ciy def pour muy bi comme xamut ay parfum ak yooyu ak camfor ak di ko defal ki xam ne liir bu tàkkuwul dafa judd rek faatu ñu di ko defal yooyu wa tasmiyatuhu wala ñu di ko tur tudd sàkkal ko tur judd na faatu ñu di ko sàkkal tur dégg nga yooyu yëpp ñu si biir wasalaatun ak julli ale ci moom comme takk du am laaj ko bàmmeel lii moom su fekkee ne bi mu juddoo jooy na rek dana am laaj ko bàmmeel daañu ko jullee daañu ko yooyu waaye ki nga xam dafa juddu judduwul bakkan kenn waru ko jullee kenn waru ko sëng kenn waru ko yooyu eh, ñu dem di ko yóbbu ca bàmmeel ya ji àndandoo gi mel noonu waaw fii ko mm-hmm. ci moom dañoo waxoon ne sax léegi maanaam ay janaaba ji moom ak jegeem ko sax dañ ko sib léegi ñu ngi maanaam jege gi bu fekkee ne ci waxtu bu muy faatoo ndax malaayka yërmande yi war a teew te nit ki ah, borom janaaba gi dana tax bu mën du mën a ñëw moo tax waxtu woowu lañ ko dañ ko tere bu fekkee dee na ba noppi dégg nga wa def na bu ak soolam bidaari ci kër suul nañ ko ñu suul ko ci kër gi seulement bu ñu ko suulee ci kër gi ba boo ko dee jaay da koy jënd waat nga ko ko wax waaye nag nee na wala sa ayibal du mu ayib suul waaw suul bi duy ayibal kër gi waaye nag bu seet boo ko dee jaay ñu daal ko wax mu ne nag di xilaafal kabir loolu wute nag mag nag mag moom bu ko suulee ci kër ayib la léegi la nga waroon jaayee kër gi kër gi am na bàmmeel bu ci ne waaw dootu ko jaayee ayib la daal ayib yoo xam ne kon boo déggee ne ayib la dana waral xiyaar te it bu pas-pasu jaay bi dogee te it bu pas-pasu njaay bi dogee waa ji xamul woon ne am na ko ñu suul gannaaw gi gis ne am na bàmmeel bu nekk ci kër gi na xàcc. kii dafa mel ne kii kër gi dafay wàññi ko. waaw xëy ma ji wàññi ko parce que euh, c' est un peu du daal maanaam daal nekk na loo xam ne daal euh, xam nga nu ko mën a waxee luy naqari ñaawal njort wala loo xam ne xam nga am na ñoo xam ne bu ñuy di xëy <laughs> sax xam nga. waaw fi nekk. 15 sur 30 bu ñu ko waxante woon léegi. waaw te fekk bàmmeel bi bàmmeelu bàmmeel lañ ci biir. waaw léegi bëri du 15 sur 30 ndax bàmmeel bi fa mu nekk léegi bu kenn. xam si comme wax dëgg fi sax. waaw da nga dëkk ci ay sëkk. waaw waaw. mais gis dem nga ci. waaw maa ko dem. maa ko man kay dugg naa am naa fa ay livres yoo xam ne balaa ko jënd ci santé. waaw. xam ne benn góor yoo xam ne moom affaire religieux tajlid lay liggéey. mu dëkk foofu. waaw at tey moom doon maanaam ñu ne man sama bopp bu may dem. waaw kay ay kër lañ. waaw li ci gën a doy waar fi mu toll nii da ngay jaar ci biir kër yi di dem dem góor gi ci boppam mu dëkk nii. boobu étage bi ñu ne ay ay bàmmeel la ba da ngay yéeg ba àgg ñu dëkk foofu ñu fi ne bu fekkee ne xam ne am na ko ci gaañ bu ñu ñu rox dañuy génn fële ñu daal di ko rob ba waaye dem man fi ñu leen fàttali ko defe naa di wax defe naa dañuy wax ne nangam kilomètre carré nangam kilomètre carré yëpp yoo xam ne yaatu na de ci gannaaw ak rek xam nga nañ koy bañ a maatale li nga xam ne tubaab yi noonu doon ñoom dañ xam nga Côte d'Ivoire dañuy sulli bàmmeel yi ziar nga imam Shafi xam nga mu xam ah kay dem na moo euh, Mouhamad Ali bi waaw waaw eh, kii man suñu borom la de tellement man li ma gisee réew mel Égypte mm-hmm. dund bind ko taxul koo gën lool. gënul lool moom yàgg ko. ndax day dem yàgg bu dee yooyu daal taxul. sori la sax dara ñoom nit naar yi naar bi moom moom daal dafay benn bët. si ak mel ni kii fii nii maanaam gis naa ko benn benn xale comme ni ñu mu xale bu tuuti la. benn nawet boo xam ne ñun dañuy fay rek ñu yëngu leen sangal. waaw yor ci loxo yi dox dox bu rombee accident mu taxaw xool. waaw bu xaritam mu taxaw waxtaan ak moom ree. génne si reeram toog ci tam. te dafa suuf maanaam ñu ngi ay xale yu ndaw wan ñu ci seetaan. waaw maanaam ñu xam ne dañu leen di dàq. mais ci leen fële la. li may xam naa foofu daal dund moom xëy na baax na waaye yàgg daal baaxul daal day wowal gis nga li ñuy wax ngëm day wàññi ko rek. nit ñi dañuy tàmbalee weddi nangam jóge ca loolu woyof si ñoom ba ñu weddi nangam ba mujj ci nga lislaam bi tur wi ak sëgg ak siggi bi ak jàkk yi rek a fi nekk waaye taqawallahi dëgg ak yëg am yëgu lislaam ak ñu jafe ci ñoom ñu ngi tàmbalee ci naan nangam bi daal bu ko defee kooku ñu di la ayibal te fekk du bidaa xaaju di bidaa mu fanatisme la biir fanat baatu fanatisme boobu nag nga xam ne tubaab yi ñoom ñoo ko pour complexe complexe ko nit rek te ñu ci bari nag dañuy daw fanatisme boobu baatu fanatique bi tàbbi ci loo xam ne dara ci àdduna jéem ko dara waaye nga gëm moom diine moom ku fanatigul daanaka gëmuloo ndax doomu aadama mënul bañ ba fanatique xaw mu fanatique ci alal wala mu fanatique ci pook wala mu fanatique ci jiw wala mu fanatique ci nangam ji boo fanatique yi ci yàlla nag ñu bëgg la ñaawal nga am ñàkk bopp yow dégg loolu ñu wax ba mu wàññi la dara wala mu tax laa ruus dara wala yooyu doo daal doo doo yow yaa leen waroon complexé ndax yow yaa ci dëgg yaa ci luy dara ñoom newuñu ci luy dara ñu di la complexé donc comme tout waaw mën a xam c'est-à-dire mooy gëm ba nga xam ne da ngaa dox daal amatoo xel dootoo raisonné amatoo xel moo xam ne da nga koy doxee da nga dañ leneen nii rek nga indi ci loolu ba nga xam ne euh, da nga wormaal dara ba mu ëpp ba nga xam ne indi moom foo xam a nii. racine moom sax du araba a boobu. jeex fanaa jeex ci naan. xam nga arab yu bari yi ñëw ci français bi arab arab ci am si chimie waaw. waaw li ñoom li ñuy wax lépp xeex la rek ndax pratique moom ci diine fu ngeen day dem dem yàgg doon dara ci xool leen li muy européen yi nga xam ne ñoom fu ngeen nii nii ñu scientifique ci wàllu àddina suñuy mhm. tubaab xam ñu leen yëkkatee xaalis ñu jox la tubaab du ko def mukk waaye kon def mukkaay ma fay la nga rey loolu loolu gën <laughs> a fanatisme ci alal foofu la mën a yow yaa ngi rëy pour ëppee ah. rey ay bakkan ku yow nangam na nga ñu di la fay fay man daa sonn daal mu yëkkati maanaam lekk jox la wala ñu jëndal waaye nag yëkkati xaalis jox la nga def ci sa poche déedéet tubaab dañoo gëm xaalis dañoo gëm yàlla comme ni nga gëmee yàlla lañ gëmee xaalis <laughs> loolu nag mooy fanatique dëgg nag yéen jël ñëw ah généreux comme un pauvre ah. Ah. loolu c'est une expression la généreux comme un pauvre <laughs> ah généreux comme un pauvre <laughs> non alal la ñu gëm ñoom alal daal nit ku yax ñëpp a gëm alal mel de. ku ci naar yi noonu la ñu mel. moom kay lenn moom ngaa di ñu xëy dafa ñoom xaw a sonn ñu invite la ci restaurant nag waaye. yëkkati xaalis jox ko ko xaaral ko def. <laughs> bu leen nee naa ko def ngeen daanaka day koy xamul. wala un pour cent mu dugg ci ñoom. xaalis de moom. liñ la mën a defal daal yëkkati xaalis moom. xam nga fonk nañ ko ba nga xam ne ñëwee Sénégal yi suñu joxe xaalis moom dañu ne. waaw waaw waaw. ki ne fonk nañ ko xam ne boo leen seetee nii même Europe ak yooyu. Mm-hmm. xaalis bi nga def seen bopp ay chèque rek la ñu yor. waaw waaw waaw fonk rek. wala leb leb di maye kooku de toog moom guddi yooyu yëpp nag jikko yu lislaame la yoo xam ne Sénégal rek ci la dese xëy na boo demee Pakistan mu am ci tuuti am na générosité bu mel noonu islam daanaka réewi nag daanaka di tubaab yi xam yëkkati xaalis joxe xam ko ko dañ ko xamul sax atay atay fiq yi ci baat gis nga ni ñuy tenir compte ci alal moom dañ gis gis nga léegi nit ki am na bu ñu xoor mu dee ñi koy doon nañu or bi loolu yàq na ko suulaale dañ koy ji hmm. <laughs> dañ ko suulaale xam nga ne nit nit ku weex moom sax waruñu koo sang waruñu koo tar suuf moom maanaam waruñu ko cuuraay wala wala liñ ko la ñu koy waaw buñ ko defee ba noppi waaw. allo dara dara rek waaw dafay laaj ci péer la ñuy wax ci jublu te indiwul ba xam am na kenn waru koo sang kenn waru koo sang ba man ko sang waaye kenn waru koo jundee ak di ko defal lu ko la ñu mel noonu dafa ne buñ ko xasee ba def nag waaw kenn waru koo tuddee nag mu ne nag buñ ko xasee ba def ñoo ko buñ ko xasee ba def moom léegi nag kii ci kii la biir salaatul kabir ji ndax loolu moom fi mu mu ndax dagan na wala ci kaw rek ne jeexit bi ay ci ki jënd kër bi ko kooku moom xam nga dafa nekkee si biir ki moom kabir bi nag moom moom bu fekkente ne dañ ko koy suul xam nga dafa ne sib nañu péer bi ñu si ko ji bu fekkente ne nag mag la nag kooku moom mu ne aleykum salaam qiyaas jawaas lintifaa bihi kii nag mu ne bi xilaafi def nil kabir yi bi daarin kooku fayee juusu ah fayee juusu wa in bi at biduni bayaani xëy ju wa in bi at bi doon wa in bi waaw wa in bi at naam falil mustari mel na xam ne rabbu mu ngi fay gis wa in bi at bi doon bayaan yi falil mustari rabbu boobu xiyaar boobu ayib la joo xam ne moom xam nga ñàkk doon ayib gi ci kër gi moo tax mu ne waaw bi xilaafil kabir xam nga sëqat bi dafa wax ne du ayib du ayib bu dee mag nag ayib la ci kër gi te yoon jàpp comme ayib boo ko gisee rek sañ kaa delloo lu dul muy xiyaar nga jënd ko ci xiyaar bu ko jëndee ci xiyaar moom nga dem ba fani xiyaar yi jeex hmm. gis nga ay bëgg la gisuloo ko nga ñëw jënd ndaxte foofu lu tax dootoo ko sañ a xàcc mayoon na la diir boo mën a xamee lu nekk ci kër gi hmm. wala lu nekk ci jàng wala lu nekk ci fas wi hmm. ndax ku si bu fekkee ne yaa ngi koy xiyaar bu dee xiyaar sañu koo jëriñoo waaye sañ nga koo jox nit mu di ko war di ba xam di dawal ba xam dana soox wala am na ayib wala yooyu bu fekkee nag ñetti xiyaaru ñetti fan la nga toog ñetti fan gisuloo si benn ayib nga ñëw jënd ko léegi dog na waaw jooju daf ñu tënk fii fii tëddaay moom waaw yaa moom sa kër kenn terewul nga soo ci seen yow bu la neexee waaye nag ayib li ci kër gi pour nga jaay ko keneen yow mën nga koo xajoo ndax yàpp ko fi def mën nga koo nekkaale xam nga ki mu ki mu ci ki boo ko jaayee léegi nga bëgg koo jaay keneen nag faaw nga xamal ko ne ko kër boo am ba mel la léegi waxuloo ko ko mu jënd ko ci kaw kër bu amul bàmmeel léegi mu xam ko bëggu yoon kër bu amul bu am bàmmeel mu xam ko mu ñëwee su ko neexee mu xaj li may laajte maanaam mooy loolu bu fekkee ne daganal nañ ko. waaw ndax duñ jàpp ne loolu day demante mu yàgg mu xaw a nekk euh, xotti ormay doomu aadama ndax dañu ngi ji bare di ko def kër gu ne di ko buñ koy denc mu loolu daal duñ. xam nga xam nga loo xam ne sax nit ñi ñu ko def ak lu ñu daganal ndax bari na yu dagan te nit ñi duñ ko def. Hmm. am na nit ñoo xam ne sax bugguñu suut kenn ci seen kër. léegi nag bu fekkente ne boroom kër bi ñoom moo moomoon këram moom mu xajoo loolu mu def ko te moom moom moom këram xam nañ ne lu raar la waaye dañ dal nañu jàpp ne kër gi kon ayib a ngi ci ba bu koy jaay du ko jaayee prix kër gu amul néew te bu ko jaayee nit te xamal ko koy kooku dana sañ a xàcc ci waxtu bu ko xamee xam nga bu dee loolu dana tax ñu bari itam dootuñu bëgg waaw ci kër dagan gi nag mu ngi tekki koo xam ne kii moom di li darurati amoon na lu tax mu war a suul euh, nit ki ci këram. suppose euh, masalan waaw lu def fard léegi ci ko reyee ñi mu ko yóbbu bàmmeel ci ma ci ngoon si ba jant so ñu bàyyi ba mu guddi ba guddi ñu yónni ko làqu dem dugg rek ci bàmmeel yi rek fii njëkk a rek daal di ko fiy denc léegi mu léegi mënoon nañu ragal boobu fekkoon ragal gi dañul wala ñu ñun ñaa ngi taxaw ci buntu bàmmeel yi pour buñ ko denc suñu rey leen ñu denc ko ci pour nit ku neex parce que dagan na liñ daroo waaw liñ daroo ci maanaam itlaq moo ci am ah parce que même bu dagan nit ñi duñ ko def fekkoon na waajib la waaw a wala muy luñ sopp sax boo ko mooy mu ni laa xaid du càggit nag koo xam ne kii dafa amee càngaay rek régal dégg nga sang ñëw bi comprendre ngeen waaw li koy mu dagal waaw dugus naag jëlu mu nañ ko neex ak misaal loolu daal nga xam ngeen noonu rek wa salaatu faadilin naka noonu lañ ci biir salaatu faadilin wala sib nañ ko jullee nit ku baax nitu yàlla nit ku am diine daal nit am xam-xam mu jullee ala bidaiyin ci nitu bidaa kooku moom itam sib nañ ko bidaiyin sa bidaiyin ko gis nga biddaa bu aqida ak biddaa ñu koy wax fas bil jawaari mm-hmm. ak bil qalbi topp fiqaat yi ah, la mu fëgg tabdiq nga bokkul ak takfir ala sahi ka qadriyin wa xadriyin nga def fi mun saqaat kabaa'iri wa anil bidaa'i al-muhdathati fil iimaani yukrahu lil imaami wa anil fadli salaatu alayhim naka noonu ku ku xaru xam nga léekoon zalika rad'an wa zajran li ghayrihim an misli haalihim wa mahad haadha maa rawaa Jaabir an Sawda radiyallaahu ta'aalaa anhu an nabi sallallaahu ta'aalaa alayhi wa sallam ataa bi rajulin utiya bi rajulin qatala nafsahu liman misaalun saahibun shaahidun bi ilqaa'i nafsihi min mahallin 'aalin falam yusalli alayhi البر ما لم يؤدي إلى ترك السنة الكلية وإلا فلا تكون ولا comme moom euh, mu ngi min ahlil qibla la bokk mu ne yàgg yàgg moom fas na ne julli waat na